maanaam débat contradictoire la mais man li ma ci jàpp mooy état mooy responsabilité jour bu taxawee ni dialogue bi mu ngi nii en rapport avec la société civile avec des forces vives yooyu ñu wax ñu jël ci ñu crédible ñu teg en place ñoom Alioune Tine ak ñoom ñëpp ak ñoom Amnesty toutes les ONG et cetera les mais est-ce que mënoo leen jox raison le fait que ñoom ñu ne euh, ñoom dinañ dem dialogue sauf que président Macky Sall dina ne moom non non loolu non non non non non non non non na nañ ah, nañ ah, waxante dëgg non non non. seen logique non man man man je suis pas ces gens là di wax n'importe quoi gis nga euh, le président Macky Sall ban texte moo ko obligé mu wax ni war naa nekk candidat ou pas. non mais moi moi j'ai dit. moi j'ai dit article 27 partant de l'article 27 j'ai toujours défendu. te ku ma suivre am am Macky warul am warul nekk troisième mais pour la mais pour la stabilité. Malick ne reste pas terminé <laughs> pour la stabilité. pour la stabilité du pays. Hmm. et puis bon potentialité dañuy wax tension et tout mais président Macky dafa war a prononcé wu. mais mais lii kenn mosu ko gis. élection eh, presque moins de dix mois ngay élection yow nga naan lii bii nii noonu. tout le yow kenn xamul ba xam candidat wala doo candidat. Malick soit on est dans une république. da nga d'accord si loolu. dans moom wax na ko bind na ko. mais actuellement. nii nii nii nga ne nga ne moom dafa war a obligé wax. mais lan moo lan moo koy force pour mu wax. tu tu parles de tension quelle tension. yow yow Macky Sall waxul rek yow da ngay génn si mbedd. <laughs> mais Assane yow yaa ma gën a placé pour xam ne. non bon dëkk bi le fait que muy. non non bu ko waxee parteem coalition waxuma la parteem mais coalition mooy jëkk a tas. actuellement ah, mais ça risque loolu c'est le prix à payer. ça commence d'ailleurs parce que. parce que tey moom coalition bu ko gën a fragile amul moom moo tenir coalition bi. gis nga bis bu nee nekkatuma fi léegi nit ñi dem seen. ku nekk dem sa yoon parce que parce que ñeneen ñi gisuñu keneen koo xam ne APR. Euh, waa AFP wala waa PS dinañ dem di di di topp sa ginnaaw. donc donc il faut il faut comprendre cet aspect. ok nga xam ni fii ba dernière minute mun na xaar. Mm-hmm. li gënoon mooy mu wax. mais vu le contexte réew mu nekk ak contexte am. Buhari Buhari teel na ko wax euh, Mohamed euh, kii Niger. Issoufou teel na ko wax. mais fii peut-être y a un spécifique je ne justifie je ne rien.